Clédor Sène euh, ñu ngi lay nuyu. Euh, ñu ngi leen di fay. yow yaay président Rewmi FM yow mouvement Claire Vision gindi askan wi ñu am mbégte lool dara la ci matinalu tay bi euh, ngir waxtaanee surtout mbiru Petrotim nga bokk ci ñu fasoon lool ci xeex boobu ñu wax ne mm-hmm. doyen des juges jeexal na enquête waaye gisul dara loo xam ni mënees na cee topp Aliou Sall di rakk ci njiitu réew mi nga xam ne joxoñoon nañ ko si baramu tuuma notamment yéen ñi doon porté boobu combat. mois mais ñeneen ñi ñu ci déglu woon yëpp aussi ñu ne gisuñu lan lañ leen toppee est-ce que loolu mbetteel la euh, ci ku ni yow. waaw loolu du lu mbetteel parce que euh, doyen des juges yàgg na wax ni boucler na dossier bi. Euh, jébbal na ko procureur. lii bees mooy dañuy yeewu ñu ni journal Les Échos bind na ni procureur nee na gisul lu ñuy toppee nit ci donc loolu bu fekkee ni lu am la. lu ma bett lay doon. parce que loolu mënut a ne. parce que bu ñu yemoon kese kese kese kese. ci rapportu OFNAC bi nga xam ne procureur da cee toogoon xam nga présidente OFNAC naan publiquement ni jox naa la rapport bi ay at a nii rapport boobu kese kese kese kese buñ ko saytu woon kon mbir bi dana dem ci yoon parce que OFNAC du jox procureur lu dul lu ñu mën a toppee nit bu fekkee ni du lu ñu toppee nit ci yoon ay recommandation administrative lay def pour wax rek ne même ñun bu fekkoon ni indiwuñu fifteen indiwuñu dara ci bi rapport nag loolu rek mënoon na nekk sukkandikaay pour euh, yoon mën a def liggéeyam rawatina nag bi ay nit ñu mel ni man Mamadou Mouth Bane euh, euh, président Boubacar Camara Abdoulaye Mbaye Ngaraaf ñeneen ak ñeneen ak ñeneen ñi nga xam ne yàgg nañu porter dossier bi yàgg nañu combat bi entendre nañ leen ba ñu indi seen i firnde doyen des juges firnde yi mooy lan Aliou Sall mi ñu ci tudd li tax ñu tudd ko ci dafa am këyitu notaire bu wane ni moom moo moo moo moo moo moo sos société bi ñuy wax Petrotim Sénégal mu nekk société unipersonnelle société boo xam ne benn nit moo ko moom benn nit kese Aliou Sall mais société boobu la ñu dugal quatre-vingt-dix pour cent actifs yi nga xam ne moom la ñu jaay Cosmos ak BP société bi Aliou Sall kese moom la ñu dugal actifs yooyu Sénégal kenn amul privilège boobu ci quinze millions de Sénégalais moom moo ci am privilège boobu parce que président nga xam ne ba mu signé décret yi rapport IG inspection générale d'État ay agent assermenté dañu ko ne sa ñaari décret yi nga signé baaxul ndax entreprise bi nga jox société bi nga jox licence yi remplirul condition yi dafa jalgati disposition article huit bu code pétrolier bi ne kenn mënut am licence su pétrole wala gaz te wane woo ni mën nga ko ci wàllu alal mën nga ko ci wàllu xarab ñaar yooyu ngay boole te ci biir Petrosen dafa am commission buy saytu ci ñuy demander eh, licence ndax am nañu capacité financière yi donc dañuy xool en bourse dañuy xool seen état financier ak yëpp saytu ko léegi foofu tamit beneen responsabilité mu ngi fay dugg parce que manquement boobu Aly Ngouille Ndiaye moo ko compensé moom mi nga xam ni dafa bind rapport de présentation boo xam ne dara du ci dëgg pour wane ni euh, société petro ci kuréelam bi ñuy wax Petro Asia la ñu ko laaj yëpp remplir na ko maanaam am na ay état financier yu baax def na ay réalisation yu baax ci monde bi te ma wax leen léegi Petro Tim ak Timis Corporation nga xam ne benn société la benn bànqaas benn garab la ak ay bànqaasam rek amul fenn ci àddina fu mu a bënn teenu pétrole amul musul bënn benn teenu pétrole day négocier ay licence dem jaayaat ko ñi nga xam ni comme BP ak Cosmos nga xam ni ñooñu ñooy mais mosul bënn teenu pétrole spéculation lay def te ci l'enquête euh, euh, IGE neewoon nañ de société bi lépp wane na ni ci spéculation la jëm parce que liñ ko jox mënu ko liggéey léegi fàtte naa sax ci version française benn deuxième niveau de responsabilité bu président Macky Sall premier niveau de responsabilité mooy bi mu signé décret yi IGE ni ko waroo ko signé parce que dëppawul ak suñu code pétrolier contrat yi baaxul annulé ko loolu mooy recommandation euh, IGE E. E. ñoom ci ci ci ci orma dañ koy tuddee proposition mais en fait bu doon ci fonctionnaire la recommandation lañ koy wax xam nga mais président proposé parce que mënoo ko jox ndigal donc loolu question de forme la rek légistique léegi deuxième niveau responsable que président Macky Sall li ma fàtte woon wax mooy ba Aliou Sall ak Franck Timis yore yore yore euh, licence yi mais toog nañu ñaari at mënuñu ko jaay te jaay lañ ci jublu woon amuñu client léegi suñu ko dafa ni la joxee deux ans parce que da ngay engagement de travaux defoo réaliser woo engagement de travaux yi soit da am pénalité wala ñu nangu licence bi sa sa loxo président Macky Sall dafa signé yeneen ñaari licence yeneen ñaari décret basement pour pour yokk période initiale de recherche bi deux mille douze euh, euh, mille cent cinquante quatre ak deux mille douze mille cent cinquante cinq bi nga xam ni moo yokk euh, validité contrat bi kon loolu moo may après ñu mën a am client ci ci Cosmos puis ci BP kon président Macky Sall jàpp na ci kéem kattanam ci dossier boo xam ne moom ci nekk ministre am moo wax lu dul dëgg Aly Ngouille Ndiaye rapport de présentation li du dëgg damay bañ a wax waxinu ñàkk teggin mais ñëpp xam nañu li ma wax donc loolu moo mooy mooy génère problème kon loolu le juge mënul ni gisul dara parce que au moins rapport de présentation mu ngi fi décret yi mu ngi fi recommandation UG mu ngi fi acte notarié bi nga xam ne Aliou Sall kese moom moom Petro-Tim Sénégal mu ngi fi rapport OFNAC mu ngi fi. Petrosen tamit dafa mel ni defoon na recommandation yu mel noonu. mais mais mais justement parce que ñoom ñoom ñoom dañu ne woon. Euh, euh, ni ñu anam bi ñu joxee anam bi ñu joxee permis bi du yoon parce que euh, Petro-Tim kenn saytuwu ko ci commission d'évaluation parce que commission d'évaluation mooy càmbar société bi ndax euh, euh, dëppoo naag charte yooyu te ci suñu yoon dañu ni boo demee gis naa mën nañ ko sax annulé kon tey jii président Macky Sall ak euh, justice am ñoo fi nekk di am ñu ñuy teg loxo. di am ñuy teggi loxo. d'accord léegi yéen preuve yi ngeen yóbbu woon ku mel ni yow gisoon nañu la saak ba mu fees nga euh, yóbbu. nga ni ay preuve la yoo xam ni. Euh, daanaka kenn mënu ci teggi dara. léegi preuve yooyu naka ngay def ak ñoom. waaw léegi léegi ñun xam nga am nañu euh, teggi lu bàyyi yoon. ñu àggali liggéeyam ba ba sës. comme léegi nag lépp wane na ni yoon jeexal na liggéeyam parce que man dinaa jéem euh, am euh, motivation wu décision procureur bu fekkee décision bu am la parce man gisaguma décision bu ñu motivé information mo ci presse bi la alors bu fekkee ni gis naa euh, décision motivée procureur man dinaa jël samay responsabilité ba ñëpp xam li nekk ci biir dossier bi parce que ala kulli aalin moom mbir mi danañ ko atte te dana leer parce que président Macky Sall mënu fi nekk ba abadan di protéger rakkam parce que Mauritanie ñi ni président ba nekkatu fa ba mu demee ki ko wutu commencé na l'enquête ci affaire dossier Petro-Tim bii hmm. euh, blogu blogu blogu Saint-Louis boobu ba enquête bi ñëw nañu ba fii di saytu Sénégal te président ba woon woo nañ ko pour poser ko ay question dafa bañ a ñëw sax waaye ay jegeñaaleem ñu ngi leen di woo di leen saytu leen laaj parce que indi nañu commission d'enquête parlementaire te danañu leeral li ci dossier boobu parce que bu fekkoon ni amul woon lu ci lënd kon naar yi sax duñ ci sax def enquête kon fii ëllëg bu fi Macky Sall jógee mbir mi danañ ko leeral lii moom mënul mënul mënul mënul mënul nax saay parce que kon su ma la déggee jàpp ngeen ne fekk président Macky Sall mi ngi fi mbiru Petrotim du mujj fenn. voilà tant que président Macky Sall mu ngi fi négam député bu def ay faux ñu jàpp ko loxo ci poste ay milliards yi milliards yi milliards kooku la ñuy bàyyi ak bu mu ndegam kooku la ñuy protéger ak sama rakkam bu mbokk ndey ak baay donc moom tant que mu ngi fi mais du seetaan benn yoon rakkam di nekk ci yoon surtout que dossier bi du rakkam kese nee naa la moom responsabilité mu ngi ci à deux degrés parce que dafa signé ñetti décret yu ko lëkkale ak rakkam kon moom da ciy dëgg da ciy dëgg bu baax a baax a baax a baax pour dossier bi du mën a dem ci yoon parce que l'enquête bi sax dañ ko doon jéem a orienté ci xaalis bi ñuy jox Agri Trans pour naan ndax am na corruption ndax amul corruption ñoom bés moo tax ma ni maa ngi xaar ba gis ni procureur jël comme comme motivation parce que bu fekkee ne loolu la ñu ciblé ñu bon li BBC wax euh, ni joxe nañu deux cent cinquante mille dollars amuñu ci benn ciblé parce que def nañu réquisition bancaire ci banque yu bëri gis ñu trace virement boobu donc loolu ñu doon wax si fóona loolu c'est un faux parce que ñun loolu intéressé wu ñun suñu gaz moo ñu intéressé ñi nga xam dañ ko jox Aliou Sall ak Franck xam ne dafa jalgati suñu code ci anam boo xam ne président Macky Sall ay lu Ngouille Ndiaye moo leen ci jàppale ñoo ci nekk ay complice parce que ci réew nag mënoo joxoñ baaraamu tuuma jiitu réew mi ministre de l'énergie bi nekk tey ministre de l'intérieur ak rakkam te dara du la ci fekk parce que ñun tuumaaluñu kenn dañu nekk ci dëgg li ñu wax mooy dëgg mooy li am moo tax duñ ci addu dañuy wut seeni nit comme ay ay procureur ak ñeneen pour ñuy jël ay décision de justice yoo xam ne bi yoon te procureur moom ci boppam sax dafa gàllankoor yoon parce que entrave à la justice entrave à la justice mooy ba ko ba ba ko OFNAC joxee dossier bi rapport bi ci affaire Petrotim moom da toog yéex nañ koo xam bi ñuy woo à témoin le président de OFNAC déclaré publiquement ñu remettre na ko dossier Petrotim rapport Petrotim kon toog googu mu ci toogoon kooku jalgati yoon la kooku kooku gàllankoor yoon la te loolu délit la bu ñuy punir délit la bu ñuy punir kon même procureur seetul ci dossier parce que dafa dafa téye rapport OFNAC léegi nag ñun dinañ exiger publication rapport OFNAC boobu comme rapport UG bi am nañ ko ñun suñu yoon ci dañu tere ku ko ku ko publier parce que man ba ma demee ba ma demee ci jàkkaarloo doyen des juges ay disposition rapport UG bi laa ko jox ñu mentionné ko consigné ko sur procès verbal nañu nañu publier procès verbal man maa ngi rëcc li ma jëlul avocat parce que su ma jëloon avocat tey damay am accès au dossier audition yëpp yëpp yëpp dañ koy bi dafay public affaire bi dafay public mais procédure la ñu xamul Sénégal hmm. appel à témoin yow da yow du yow la tëj kenn du la confronté amul confronté kenn hmm. yow booy tuumaal nit kay nañ ko teg nga teg la wala nga indi document ñu indi beneen document enquête dafay contradictoire du jàpp benn kii déglu waa dégg nañu li ngeen wax point après ñoom ñu def lu leen neex loolu du du du luñ leeral mais de toute façon ñu am yaakaar beneen procédure bu euh, premier ministre Abdou Mbaye ak Thierno Alassane Sall ak euh, Mamadou Lamine Diallo déposé mm-hmm. boo xam ne dafa am constitution de partie civile je crois boobu duñ ci gëm ni gis ñu dara parce que élément de preuve dossier bi presque ñëpp am nañ ko parce que dañ ko publier mooy rapport UG bi mooy mooy lu nekk ci biir donc yooyu euh, dafa doon neex sax euh, euh, justice bi ubbi instruction mhm. nga xam ne léegi boobaa parce que ñun dafa am lu ñu gànnaayoo woon parce que dañu xalaatoon ni dañuy taxaw à la barre xam nga parce que ñoom dañuy am ay pexe pour jël sa argument yëpp xool naka lañ lay contrer wala xool sa niveau d'information wala sa niveau de nuisance fu mu yem jéem la jauger ñun tam dofuñu donc affaire bi naxante la woon mais léegi comme que ñoom seen dossier ne sóoratu na léegi ñun ñoo ci des dañu relever euh, le dossier euh, jëlaat combat te luñ ci mës a dellu gannaaw te luñ ko mës bàyyi. ba dëgg bi di feeñ. Mhm. ba ba ba ñuy rendre justice. incha allah très rapidement ñaari simili daanaka moo ñu dese ñu ñëw ci mbas mi di coronavirus xëy na duñu mën a ñëw ci euh, gestion bi ak yooyu. mais mhm. mbirum vaccin yi nga xam ne doon nañ ko fi wax jamono yële mu jékki mel ni lu fay am na aussi ñoo xam ne ba léegi mi ngi des ci seen bopp ñu ne woon dañuy bëgg a ñàkk nit ñi euh, coow li nekkul Sénégal ànd na ci ànd ci euh, ngeen itam nekkoon ci boobule xeex loonu ci mën a wax tey ak fu mbir yi toll. Sénégal wàllu euh, coronavirus te ci te ci wàllu yo euh, wàllu xam-xam. Euh, coronavirus kenn mu ci kenn virus virus pathogène mënut am vaccin mais vaccin boobu li ñu ci jublu rek mooy marqué ñu biologiquement maanaam sol ñu ay ay ay ay doomi loo yoo xam ni dañu ciy mën a contrôler pour kuñ ci bëgg a wàññi ñu wàññi la kuñ ci bëgg xam xam sa lépp am say am sa lépp donc loolu projet la boo xam ne nouvel ordre mondial bi Macky Sall di di di prôné moo ko tax. parce que boo déggee man su ma déggee président Macky Sall di wax nouvelle ordre mondial damay tiit boo xamee luy loolu ak lu nekk ci gannaawam ay ñoom Bill Gates ak seen nit ñoo am seen projet ID deux pour identifier population mondiale yépp parce que nee nañ diggante deux mille trente ak deux mille quarante population bi day jéggi dayoo donc il faut mu am ñu ñuy wàññi donc loolu mooy seen premier instrument pour jublu ci wàññi nit ñi ci ay feebar yoo xam ne ñoom ñoo koy créer donc loolu mooy mooy affaire pandémie léegi nag. dañ ko dañ ci boole euh, ndërmeelal euh, économie réelle pour yëkkati économie virtuelle parce que économie réelle bu ñu nee état d'urgence kenn du dem kenn du dikk bateau du ñëw avion du auto du génn région ak région économie réelle daanu léegi économie virtuelle mooy taxaw lépp en ligne nga kay def télétravail télémédecine livraison et cetera et cetera te kan kan kan lay profité euh, Bill Gates et Microsoft ñooñu nga xam ne. ñoom dañu bëgg a virtualiser le monde euh, parce que ñoom ñoo ci am njëriñ euh, di ko jaarale ci suñu santé pour euh, def ay nit ñoo xam ne daal ci lu ñu nekk rek ñoom dañ koy xam luñ lu ñu namm ci ñun aussi mën ko mën ko def loolu rek mooy projet bi parce que ñoom dañu génne benn benn baat bu bees muñ ñu naan bioterrorisme maanaam xëbal nit ci wàllu euh, mu ragal jàngoro wala mu ragal santé parce que boo xoolee ñëpp dañu tiitoon dañu tiital pour rien du parce que li ñu waaj li ñu dindi mesure yi mooy wan ni euh, lii jaru ko fi woon man démb dama dem euh, yoof li ma frappé mooy kenn hmm. solul masque foofu mais boo demee feneen nit ñi rek mais yoof kenn solul masque ñoom li ils vivent en dehors dund pandémie kon on a on a fait tout ça pour rien daaneel suñu économie pour rien sonnal nit ñi pour rien léegi ñu ngi retourné presque à la vie normale bien que lu bees ci euh, nit ñi mooy léegi ku nekk dafay takk masque ay ay ay gel hydroalcoolique et tout ça mais euh, euh, war nañu tiire enseignement wu feebar bi parce que man enseignement bi ma ciy tirer mooy état bi nekkate bu ko neexee hmm. mën na mobiliser mille milliards pour régler suñuy problème kon nekkate noonu na fay bourse étudiants yi te benn étudiant du ci dee kon nekkate mënoon na jënd gerte paysans yi kon nekkate mënoon na satisfaire revendication personnel soignant ànd gësam nga xam ne seen vingt et quelques plans d' action kon nekkate mënoon dara mënoon na régler problème mu kër euh, kër Momar Sarr 3 nga xam ne moo tax lu ñu am ndox bu doy problème ndox dañ ko am ñoom bu ñuy faloo ba léegi service sociaux de base yu terre à terre ndox euh, voilà mu ngi noonu donc donc lii lu ñuy lu ñuy dellu si la parce que ñoom wane nañu une capacité de mobilisation financière pour pour pour faj problème euh, euh, corona business pour dugal ko ci corona business mais léegi boobaa léegi dañuy teg suñu ci table bi suñu problème réel. Mm. ñu def la même chose. jërëjëf. Clédor Sène mm. amoon nañu mbégte dalal ci matinalu tey bi fàttali ni yow mm. yaay euh, njiital mouvement Claire Vision gindi askan wi ñu ngi lay gërëm bu baax ci disponibilité bi. merci beaucoup